babu kam kona ɓe ɓe ko arta e kay ɗum Waalaikumsalam. pour li sabab li waral ñun ñi ñëw fi mo moy tay inauguré ten bi ni ñi sant yalla subhanahu wa taala ci lool mu ñu yombal moy ten bi manam ten bi paré na mi ngi ni ndox maa ngi ni di génn alhamdullilah ndox mi euh bokku ci li nga xam nit mënu ko ñak dal te it eh, ab jaamu yàlla boo xamante ne moom mën leen ko defal te yàlla tax moom dëkku fi xamu fi sax xamul sax fa la dëkk bi nekk mais daf ko def te yàlla tax kon dana jaadu su liggéey bi pare ñu daal di ñëw fii woon ko ne li nga fi financé won kat egg na mi ngi nii. teen bi njëriñam kenn mënul la ko wax li nga fi dëkk bi fii ba koylaal ba fii yëpp fii si teen bi la ñu yoroo sakkantu na nag bii su amee ndox fii bu demee ba noor bi sori bale dina dina hmm? bu fekkee bii mu ngi taxaw nag dañooy gën a kontaan kii ñun yore ñu suñu seen fay munuñ leen sant sax lu leen lu dafa dañ kontaan ba xamul lu ñuy wax yal na leen yàlla jàppale li ngeen bëgg ci àddina yal na ngeen ko yàlla defal jërëjëf jëf. di leen kamal ne ah mbir mi day boo fu kontaan di yem kontaan nañ ba mu toll foofu nag lii yàgg nañ ko commencé yàgg nañ ko bëgg mais yàlla antuwut ko. yàlla nag ci seen loko la ko jaarale mais yàgg nañ ko bugg de nag teen benn teen bi bu demee ba noor bi soy teen bi day jeeg tak ñu nekk de mbaawaan de dugg fu ne duñu am ndox kon nag bu fekkee dem nañ ba bugg lii yàlla jaarale leen ko ci seen loxo gërëm leen sant leen lañ man loolu lañ man de sallallahu gërëm nañ leen sant naa leen ci ci liggéey bi yal na yàlla dimbale jàppale leen loolu lañ amoon luñ ci wax sant nañ yàlla sant leen sant nañ yàlla sant leen waaw kay. di sant ki leen yebal ngeen ñëw fii ndax li ngeen fi def fii lii teen bii njëriñ bi fi am ñun amuñ nattale ndax lu ëpp weer a ngi nii tey weer robinet lañ yaakaar robinet yëpp ñu ngi coupé fekkoon ci kanam nga fi ñëwoon ci kanam fii doo fi mën a taxaw ay saret yëpp nga fi dajale fekkoon ne du teen yi. kono tey ñu ngi tumaranke ndool ndox ñu ngi tumaranke ndool ndox ba mu ëpp lool lool lool kon nag bu yàlla defee ngeen indi teen bi yàlla def teen bi def ko mu am ndox ñu amuñu du sant leen gërëm leen sant ki ko financé itam di ko ñaanal yàlla lim ci soxla moom moo ko xam yàlla na ko ci yàlla jàppale yéen itam yéen yi jóge ko foofu ñëw ba fii yàlla nañ ko yàlla defal ndiw di leen masawu coono si yoon wi naaj bu tàng bi ak weeru koor bi na lool ah li ngeen ñu defal de ñun mënu leen a fay ndaxte tey ba ku fi dëkk cosaanoo fii xam nga fi ñàkkam ndox fii ñàkkam ndox moo fi ses moo fi moo fi su cosaan fii ñàkk ndox gisuma la nit ñi jànkoonteegu fi ak ñàkkam ndox rooti nañ fu ne keroog waxoon naa leen ko keroog bi ngeen ñëwee fii waxoon naa leen ko man mi yaay ba bu footi naa lam ne nga ba fanaan foofu ndeg ñàkk ndox rek moo ko waraloon yëpp ay saret la te teen bii la ñuy roote ñëpp fii ak koy lal ñëpp fii la ñuy roote gis nga seret baa ngi ni taxaw kon su ngeen ñëwee defal ñu lii ñu leen di sant di leen gërëm di sant ki nga xam ne moo leen yebal ngeen ñëw fii defal ñu lii amuñ maandem yal na ko yàlla fay ñun jigéeni Keteebe bugg nañ liggéey mënuñ liggéey ndax ñàkk a ndox aduna bi yëpp boo ñëwee demee si dangay gis ñu def ay projet ay tool ñuy def lu ne waaye ñun mënuñ koo def ndax ñàkkam ndox kon su ngeen nu indilee lii amuñ seen pay yàlla mi am pay yal na leen yàlla fay Et voilà, Alhamdulillah, un nouveau puits qui devient opérationnel ici avec en direct euh, une exploitation à fond de cette eau-là qui est, euh, mashallah, béni, qui ne profite pas seulement à ce village pour lequel il est fait. Nous venons de croiser un monsieur avec une charrette qui est venu euh, dans notre village qui est à un kilomètre euh, d'ici. Euh, qui vient chercher de l'eau euh, dans ce village, y compris d'autres villages également qui, viennent chercher l'eau ici. Donc, Mashallah, nous adressons nos particulières félicitations à ce membre discret de Haut Sourire qui a financé ce puits. Nous prions qu'Allah euh, mette baraka dans ses biens, dans sa famille, et qui lui permette de continuer dans cet engagement qui est le sien. Mashallah, qui est en bel engagement avec Open Sourire non seulement mais à l'international avec Sakuyu pour le financement euh, de ce puits, Barclofik Frérot. Euh, nous profitons également pour lancer un appel à tout le monde pendant qu'on est euh, dans le mois de Ramadan, cette opération Force du partage qui est en cours avec Sakuyu où ce sont des villageois comme ceux-ci qui bénéficient de nos kits, des villageois qui sont vraiment très fatigués et que ces denrées de base viennent aider à avoir un ramadan un peu plus tranquille que les galères qu'ils vivent en général. Donc voilà, soyez généreux, accompagnez-nous dans la force du partage pour qu'on puisse euh, en donner un maximum avant la fin de ce ramadan qui approche à, grands pas. Et à très très bientôt pour de nouveaux projets avec Sakuyu, Action pour l'espoir.